Thank <laughs> you. te koy tambalé dañuy dem fële ca Bignona ginnaw lool qu'il fekk ji fa li nga xamanteni moy la forte délégation bi nga xamanteni ki di maître Abdoulaye Wade moko yabal fofu ki ko dirigeait di délégation parti démocratique sénégalais ci gamu annuel bi nga xamanteni qui nga xamanteni moy ou imam Oufassanou nous mi ngi koy amal at bu nek ki di maître Abdoulaye Wade yonne na fa une forte délégation muy hamid bi ñu genn muy délégation bi nga xamanteni qui mo ci maillot Mayor Faye ak honorable député bi di Nafi Fofana ki di Amadou Niang qui qui dit Sali Sagna qui dit docteur Ibrahim Tito Tamba qui dit Ndeye Assou Camara Fatou Thiané dit présidente et secrétaire généraux section yi nga xamanteni moy responsable ndaw yi ak ancien yi ki ko conduire nak du ken ku dul nga xamanteni moy ministre directeur de cabinet bu président de la république Abdoulaye Wade di Aline Diop ñom dal ñoo fa teewal kii nga xamanteni moy parti démocratique sénégalais ci gamu annuel bi nga xamanteni imam Ousmane Oufassanou Bodian mi ko don amal muy ki nga xamanteni dal kep kuy militant ak sympathisant di responsable bok ci fédération départementale bu Bignona bobu ñom ñep téwon nañu fofu and ci délégation bi nga xamanteni sen frère di secrétaire général général national maître Abdoulaye Wade ak ki nga xamanteni moy candidat Karim Wade ñom dal ñi ngi saluer chaleureusement accueil bi nga xamanteni defal nañ leen ko jagleel ko famille ki nga xamanteni moy imam Ousmane Oufa. Oufansou Bodian bi nga xamanteni exprimer exprimé na dal li nga reconnaissance am jëmale ko dal ci profonde gratitude bi nga xamanteni mo qui dox ci digganteem ak ki nga xamanteni xaritam di frère le président maître Abdoulaye Wade ginnaw lool dal ki di famille Ouma eh, imam Ousmane. Oufansou Bodian daal dina xam ne daal que lépp loo xamante ni soxal président Abdoulaye Wade qui pouvoir lui amul Benyon yoon bénéficie ou ne bénéficié wu na ci soutien yi conséquent jëmale ko ci li nga en haut Abdoulaye Wade muy ay ñaan yo xamante ni dañ ko sollicité de ko ci jàmmu Casamance ak Sénégal ak fépp moi qui ni moi une forte délégation bi nga parti démocratique sénégalais demoon nañu fekkee ji li nga Gamou ni mooy imam Ousmane Oufansou Bodian mi ngi amal bi nga maître Abdoulaye Wade moy doonoon xaritam di li nga xamante ni maanaam mooy frère am daal dina fa yabal une forte délégation. Thank you.